jàpp nañu ne dañu war a taxawal benn hôpital bi nga xam ne dañu fay faj ñi nga xam ne euh, épidémie bi feebar bi daf leen laal loolu benn service bu ñaan naan bi nga xam ne mu ngi dépendre ci ministre de la santé benn centre opérationnel des urgences sanitaires loolu lay tekki war na tabax fii hôpital sit bi ñu jógee muy héliport foofu lañ demoon xool léegi gis ngeen ko euh, si ndimbalu sëñ Muntaxa euh, booleel nañu sëñ Muntaxa xalif général des Mourides ñu ngi koy siyaare bu baax di ko nuyu boole nañu ak kenn ci jëwrinam muy sëñ Abdou Latif Mbàkke mu ngi nii ànd ak ñun mu ñëw teere ñu jàppale ñu ci liggéey boobu dina yebal fii daayira bi ñu ñëw euh, aménager surtout héliport bi dagg garab yi nettoyer ko waaye ICG ñëw ak seen pelle dindi lépp nettoyer ko ñun membre du comité régional euh, de lutte contre les épidémies ànd ak chez le maire de Touba Abdou Lahad Ka ànd ak aussi le médecin chef de région ñëw jàppale ñu pour ñu mën a la fa war ci loo xam ne dañ ko fa war a def muy defaraat néeg yi muy defaraat sanitaire yi parce que ay médecins dañu fay nekk muy euh, defar toilette yeeg yëpp yoo xam ne nit mën na jëfandikoo ak setal bërëb ba ñoom dee ñu ci jàppale ba ci ay ventilateur ba ci sax yi ñu fay def parce que ay médecins ñoo fay ñëw war fa ñëw pour faj nit ñi comme lañ leen di faje hôpital de fànn donc loolu waa couse war nañ démarrer monter hôpital bi ci ay fan yu néew hôpital boobu dina tax jóge dina tax dañ ko defar fii ci biir cité aéroport bi nga xam ne foofu lañ jóge beneen bi mooy armée nationale dañuy ñëw defaraat beneen hôpital ci biir fii résidence Sëñ Touba bii bi nga xam ne moom la ñu jàkkaarlool dem nañu fa ànd ak service yëpp ànd ak hydraulique mu war a saytu waru ndox mi ànd ak Sénélec bi ne dina fa wàcc descente électrique maire Touba aussi ñëwaat ca euh, Abdoulahad Ka ne dina fi yeble ñoo xam ne dañuy ànd ak daayira bi daal di ko nettoyer def ko ci ay camion benn dem tuuri ko daal di seetal béréb bi niveler ko ba militaires yi ñëw war a seen hôpital correctement loolu médecin chef ki ko fi teewal dina leen wax hôpital boobu lan lañ ci militaires yi jublu